salaamaaleykum mbooloo mi. ñu ngi leen di nuyu bu baax. instant bii nii fenn kenn kenn ku ne ci ñun. seen xel dara dul. parce que bay ko tijjee ba léegi. ku ci mel ne liise benn devoir leen defagul. te loolu teguwul fenn. xam nga ne du yoon maanaam même benn même école. ñii def cours ñii duñ def cours. xam nga loolu teguwul fenn. benn ñëpp dañuy bokk jàng. wala ñu bokk yam ji. xam nga ne du yoon. Euh, ñuy ñuy ñuy ñuy arrêté cours yi ci lycée yi di dem ci privé yi di fa defee cours xam nga loolu teguwul fenn di ñaan yàlla bu baax nag maanaam biñ ci duggee ci jàmm ak salaam génnewaat ci alhamdulilah parce que dem nañ mas nañ booba léegi maanaam benn problème amul te buñ sañoon. te ñun ñun sun sun mbébam mooy lan maanaam ñu def marche bi ba mu te benn xale du ci gaañu. ben xalé du ci am ben problème sani lo wun kenn xeer def lo lak lo wun kenn dara suñ bëgg-bëgg moy lan état bi mu génn mu régler problème bi mu jeex une bonne fois pour tout yaa dégg mala légui bu loolu jallé bu loolu jallé ñi ngi wo ñëpp ci fair play yaay ngi dégg niñ ko commencé ñu jéxalé ko nonu niñ ko commencé ñu jéxalé ko nonu amul daw amul ragal amul dara ñu suñu droit la kaas yaay ngi dégg waa gis barki dem ba léegi yéen ci grève bi waaw ba tey di leen di ngeen war a nekk ci bi mhm. ndax ndax tey amul fu ngeen foog war ngeen ko fa tënk pour mën a jàngi ndax gis nañu li ngeen bu continuer mhm. est-ce que du andi jafe-jafe yéen seen njàng yéen seen biir élèves yi waaw njàng moom kenn rek moo ko mën a régler muy président Macky Sall ñun bañ koy fal dañoo bëggoon mu defar dëkk bi ci jàmm ak salaam nekk ci jàmm ak salaam waaye seetlu nañ ba mu ba léegi njàng mi sooxeetul dafa handicap dara doxatul dañoo bëgg mu génn mooy problème bi waaw ñu gis ñu problème bi problème bi mhm. Mhm. seen diggante ak ñi leen di jàngal la wala seen wala ñi leen di jàngal ak bi diggante ñan ak ñan la maanaam bi fenn la jógee ci état professeur yi problème lañ am ak état ñun nag ñu am ak problème professeur yi professeur boo ci gis double vie la yor muy fa mu jógee ak fii mu logé kenn ko na ngaa yor say problème état moo war a génn régler problème bi bu ko defee bu régler problème professeur yi bu ñu génnee jàng ñun ñu jàng ci nekk si jàmm loolu boo amul jàmm mënul am loolu lañ bëgg régler moo tax moo waral suñu genn fi ni ci ci dëkk bi loolu moo ko waral. grève bi moom tant que problème bi réglé wul ñun pare wun pour pour pare ci yaa ngi dégg maa ngi wax ñëpp ñëpp ni nga ko commencé ñu yeggalee ko noonu ñun suñu droit la ñuy kaas ñun tooñuñu kenn lakkul ñu fi jàmbur suñu droit lañu ñuy kaas dañoo bëgg Macky Sall mu régler problème bi wax ji jeex lolu moñu taxa gën tant que problème bi Macky Sall réglé wu ko ñun paré wuñ pour paré ji waaw. merci. ok merci. l'heure est grave pour nous je dis l'heure est grave pour nous camarades car la la situation est alarmante il est donc il est donc temps de s'alarmer camarades depuis le mois de décembre, les professeurs sont entre grève et débrayage. Et si cela ne cesse pas, on se dirige vers une année balance. Et nous n'accepterons jamais que l'année soit balance. Est-ce qu'il y a une année balance Non Est-ce qu'il y a une année balance Non La condition est yëpp uniforme yi dafa cahier ak bic inscription de dafa Quand kon duñ nangu année bi di balance duñ ko nangu donc pour cela, nous devons agir pour que les grèves cessent à jamais. Camarades élèves, nous voulons que d'étudier. Tout ce que nous voulons, c'est d'étudier. Tout ce que nous voulons, c'est d'étudier. waouh. Ah nous voulons étudier. Nous voulons étudier. Nous voulons étudier. Nous voulons étudier. Nous voulons étudier. Merci beaucoup. Et on est prêt à tout. Nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout. De ce fait, nous décrétons 48 heures. Nous décrétons 48 heures de grève. Et si rien n'est fait après 48 heures, nous allons à la vitesse supérieure. Nous Nous voulons